moo ci laxasu tey fi ne nii bu ñu ko def ko du ko def waaw fi ne bu def ko du ko def waaw parce que dafa am loo xam ne euh, képp koo mën mhm. su ko dee def ci xaal la koy defee du doon raxam dinaan dama ko bëgg a def rek def ko déedéet su koy def rek yàllaa ci mu mën a nekk mais heure bu dogoone moom mën na ko rek waa daal kooku da koy weddi ba mu set du karaama. wala yow nga euh, xam nga wàllu wàllu wàllu karaama. Euh, dafa mel ni comme bu ko aw bu ko nit di def euh, dafa mel ni comme dafa jigéen ju gis mbaax di ko wane waaw karaama weesuwul yow tey nit feebar ba dee des si nga teg ko loxo mu wér.